Mauritanie sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala mañ se bi jaara jurujub la sécurité maam fu mu dem dégg ma Njaay savon lan la soppe yi day di yokk macha allah waaw loolu yàlla moo ko def mhm. yàlla moo ko def dañ koy sante yàlla bu baax parce que loolu yombul foo dem rek nit ñi bëgg la loolu yàlla moo koy def ci nit kenn mën ci dara am na jël jël waaw kii Mame Ndiaye donc li lay laaj rek mooy moom dafa baax man li ma koy wax chaque jour rek moom moo ma jàpp moom moo tax ma jàpp ko comme ni ma jàppee. dafa may woo téléphone ngay déggante man te nit ku baax la su coow amee wala dara daf may woo ne ma bul doxalee nii bul waxee nii ne ñun ñoo la jiitu ci ci nit ku siiw te ñun lu ne la ñuy dégg te doo ñu dégg ñuy tontu ma doon nit ku ko naw nit ku ko respecté Ah, parce que man nee naa leen ku ma yëgalu du ku ma yëgul du ma la yëg te moom moo ma yëg ndax man maa njëkk a xew la bu bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw fekk ma Pikine kon tey moom bu ñu bu xewlee nekk Thiès li may mën a def mooy di ko fay pour bàyyi lépp lu ma jàppoon ma ñëw ndax tey bëri naa programme yu bari mais dama ne il foo ma ñëwal Ndeye ndax nit ku baax la d' accord ah, mi ngi noonu ñu nekkoon euh, lu dul laajte li nga xamante ni moom mooy actualité ah, ki nga xamante ni moom mooy Aïssatou Diop Fall nga delloo ko sa problème ak Aïssatou Diop Fall lan la. non loolu moom duma ci débaawaat. parce que hmm. wax naa ci li ma ci bëggoon a wax lépp. Hmm. parce que intéressé wu ma nit koo xam ni tekkiwul dara foo toog di ñu lay laaj ci moom ngay wax. bu yàggee nit ñi dañ lay jéem euh, mais wax ju wax ju yegg dafa ko moom Aïssatou Diop Fall nga ma laaj mën na la nit ku tekkiwul dara duma ma waxati ci moom parce que bu la nit ñi di dégg ngay wax ci moom chaque jour sax duñ la nawloo duñ la respecté te ñun ay quelqu'un lañ ci réew mi mhm. moom wayam rek dafa ñaaw ah mhm. kon duma ko dootuma waxati ay waxam mais nag duma ko may moom reewande gi muy toggee ci palaatu du ma tudd te duma ko du ma ko delloo ndax li ma ko wax sànq dafa leer mag mu reew day moytu xale bu xam daa am loo moom xam nga xamalul nit ñi dara mais day toog di sosal nit ñi. Mm-hmm. mais mag mu réew day moytu xale bu ko gën a reew Mhm. loolu rek laa am ci lu ma ci wax mais du ma ci débat di ci topp du ma ko may importance parce que amul importance. Mhm. d' accord ba tey dañuy demaat ci nga xamante ne mooy ci jubóo bi ah, doon wax ci yow vraiment lu rafet. Ah, ak li nga xamante moom mooy Zane Mbaye. ñu bëri naan lan moo waral ngeen dem ba gàmm jubóo ko xam nga Sénégal coow bari bëri. loolu ci la ngeen ci waaw adduna amul solo. Mhm. te li ma waxoon rek laay waxaat koo mënta dóor ba yeew ko boo ko bàyyee du ko tee lekk du ko tee naan. te comme ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. ku ci nekk sa ceeb bi li bi sa ceeb li koy niinal du yow ya sa morooma la koy jox mm-hmm. kon dañuy mën a ànd rek ñu ànd bu ñu mënta ànd ku ne wane ginnaaw mm-hmm. ñu sant yàlla di julli ci yonent bi rek di lu ñu lu lu waa indi rek dinga ko fi fekk lan moo tax Mame Ndiaye bu defee dara dugal ba bëggal Sénégalais a chaque fois retour yi ñuy dégg loolu tamit naka la lay def ba ci gàmmu aussi déranger ma mm. Sénégal ñu fi bëgg bariwuñ moo tax bëggal leen du yomb. dan mhm. nga jàpp mooy loolu boo defee lu baax commencé di wax. ñi baax yor noppi garmi mhm. yor bëti garmi saa bu ñu gisee lu baax dañuy apprécier koo gis muy muy critiquer rek bégul. Mhm. kooku boo ko demee fekk seen kër boo ko bettee xamal ni bégul ku bégul doo bég ci internet bi ku bégul boo amee connexion sax doo bég. koo kenn mënu ko bégal. est-ce que nekkul yaa bi tamit. ah loolu moom tamit. Oh. loolu moom gàttal xaj. <laughs> <laughs> mais maam oh, Kër ah, ah. li fa xewoon gàmmu la. Mhm. ñu gis soxna yi kenn si ñenn ñi. tamit loolu la sénégalais yi xaw a jàpp ba ngeen muuroo leen seen bopp wala di ngeen sol dafa xaw a doon tenue soirée te li fa xawoon gàmmu la. ma wax la tey benn affaire loo xam loo xam ne boo ko déggatee man mii maa la ko wax. nit a ngi muur te moo gën a yées ci àddina nit a ngi def bopp neen te moo gën a baax ci àddina yàllaa xam ki baax yàllaa xam ki bon bis yu mel noonu man kol laa teg sama kaw kol laa teg ci sama kaw mais sénégalais yi ñoo nekk nit ñoo xam ne noo wax a wax a wax a wax ba ñu bég ci àddina ba apprécier yow mi boo sañsee lépp li nga sañse impact ñëpp ne rafet na dina am ñu critiquer loolu kenn mënu ci dara mm-hmm. mais léegi lan ngeen bëgg dañ lay critiquer yow yow bu la critiquer mu leer la ni yow ci yoon bu baax nga nekk te voie bi nga nekk voie bu baax la neel maa tay challenge bi maa tay la. mu Oustaz la. Oustaz Modou Fall bu ñu réewee ba toog seen palaat toog seen téléphone yi di wax n'importe quoi da ngay réew yow ba tontu leen. Hmm. parce que réew mi foofu la toll. Hmm. réew mi kenn amatul kenn koy rus. Hmm. kenn amatul kenn looy wax parce que léegi euh, kër sax boo ca duggee ñëpp yoon téléphone papa yaay doom ñëpp seen téléphone la ñu concentré wu. kon euh, tontu bi lenn dong la challenge bi maa tay am na solo loolu leer na jërëjëf maam jërëjëf maam jërëjëf di daal sama waay la. jàmm ña jaara bu